salaamaaleykum euh, Mouhamadou Makhtar Diouf laa tudd bokk ci ONG Sakku Yiw dañoo ñëwoon fii pour inaugurer suñu premier forage premier forage bi nga xamante ne Sakku Yiw amoon na ko ginnaaw bi nga xamante ne def na lu ëpp 500 ci ay teen ci biir Sénégal ak Gambie ñu décidé woon ne war nañ mën a dem feneen fu gën a sori foo xam mooy gën a yaatu gën a mën a jëriñ population bi ci loolu la idée defar forage ñëwee yàlla dogal nag suñu premier forage moom la ñëwoon tey doon ko am yaakaar que ne dina jëriñ lu ëpp lu teen yi daan jëriñ parce que mën nañ ne teen yi peut-être dina jëriñ ay cinq cent ou six cent habitants mais forage bi am nañ yaakaar que ne dina multiplier wu mën na multiplier par dix loolu lañ ci yaakaar su ko defee jubluwaay bi tax euh, sàkk yu di def lu mel nii moom mooy taxawu askanam dimbale leen waaye tamit ñu xamante que ne lii di joxe ndox moom mooy li gën ci ay sarax moom mooy li gën li nga xamante ne su ko nit ki defee yàlla subhaanahu wa na ko cee ay yiw yu bëree baree bëri bëri loolu moom moo gën a euh, motiver sàkku yiw muy dem ci fu gën a sori ci biir Sénégal ak gambi di fa def lu mel ni ay teen ba tey ñu mën a egsi fii tey di def premier forage di am yaakaar incha allah continuer ko ay yooni yoon incha allah. ONG sàkku yu ëpp na loolu. maanaam ay volets yu bëri la am tey accès à l'eau moo ñu jox population bi ndox waaye noonu tamit lay taxawee ci wàllu éducation amal na juróomi école ci ay gox yoo xam ne yu la. waaye gox bu nekk bañ fa demee li tax ñu def ko fa mooy dañu gis ne ay doom jànguñu kon war nañ mën ni jàppalante ñoom defal leen loo xam ne ñoom dinañ mën am éducation comme yeneen xale yi ci loolu lañ tàmbale woon commencé ko ci benn yàlla dimbale nañu ba dem nañ ci juróomi fa euh, école yoo xam ne def nañ ko mën naa ci cité lu mel ni njëkk naan moom mu nekkoon première école bi mbokk yi bi ñu fay dem kenn moo leen fa yóbbu woon ñu demee dëkk bi euh, euh, gis ne amoon nañ jàkk mais kenn daaw ci julli ci loolu nag la ñu ne nañu defar loo xamante ne doomu réew mi dañ ko mën a jàngee ginnaaw loolu dem nañ ba Bambali aussi defaat nañ fa suñu cinquième école na ko noonu tamit dañuy taxaw ci wàllu defar ay euh, lu jëm ci wàllu santé mu ngi ci à trois cases de santé yoo xam ne dañ ko biir Sénégal naka noonu tamit dañuy taxawee ci wàllu lutte contre la pauvreté loolu mu nekk mbir moo xamante ne saa weeru koor yi jotee association Sakku Yiw wala ONG Sakku dafay wër def le tout du Sénégal di yóbbu ay vivre ay denrées alimentaires pour population yi nga xam tane ñoo gëna reculer ndax comme niñ ko xamé weeru koor su joté nit ñi nañ ko séddalee Dakar foo tourné ngi gis nit ñi di joxe lu ñu nit ñi mëna a mais ñu gis né ñi nekk ci biir Sénégal loolu joxé na leen loolu motax ñu def choix bobu def li gëna metti moy moyen yi ci yow ci man ci kenen ak kenen ñu ñoy dajale suñu ay deureum ak ñoo xamante am nañ yeg yëgu li association Sakku Yiw di def ñew dénku ñu seen xaalis ñu tamit daal di koy dem tasaare ko loolu moom moo ñi am ay retours yu leen defal à travers des vidéos que ne la ñu joxoon yóbbu nañ ko. comme nonu tamit lañu amé forage bi ñu def tay mu nek lo xamante doomi rew mo ci ko financer tay gis association Takku yu ni muy doxé mu am ci ñom yaakar tax ñu associé ak ñom pour mën réaliser lu melni nii. ñu xam xayma bi ñu la ci euh bon mën nañ wax né forage bi dem na ba ci 16 millions à peu près 16 16 millions moy li nga xamante mom moko réaliser

kon daal gars yi jarul parce que en tout cas su fekkee am na ñuy dajaloo ci forage bi di rot booy ñi nga xam ne fu sore lañ jógee. mais kër yi nekk ci booru forage bi yëpp ku ne am nga robinet boo xamante ne yow soxla woo nga ñëw ci biti. loolu moo tax ñu def benn point boo xam ne public lay doon ñi dëkk fu sori nga xam ne amaguñ branchement yi ak seen kër ñu mën a ñëw am fi ndox. man la soxna Maguette Beye dëkk ci dëkk bi. macha allah sant ak gërëm rek. ndax indil ngeen ñu indi ji li jigéen ñi soxla indil ngeen ko ngeen doon roote léegi da ngeen ubbi robinet léegi dañuy ubbi robinet di root di sangu di naan dañuy nelaw ba heure bu ñu neexee dañuy grasse matinée daal sang xale yi di sang xale yi di di toppatoo borom kër yi macha allah ba pare nag di bay bayum dër hmm. ndax di gis nañ suñu jigéen yëpp di développé ci mbay gis nañ suñu moroomi jigéen yëpp defal ci mbay te ñun mënuñu woon a am loolu mais tey fi mu nekk nii macha allah ñu ngi def ay pépinière. waaw man ci Ousmane Ndiaye. Ousmane Ndiaye waaw. Euh, forage bi moom fii lañ ko defaree Chérif Lo Eh, ñing ko défaré euh mo ngi ñing ko gassé 89 mètres de profondeur quoi légui ci bir 89 mètres de profondeur bi euh ñing ko amé euh ñing commencé am dox à partir de 25 mètres donc ci bir 25 ci bir prof so calculer euh ndox bi euh, métrage bi ñi am 64 mètres de de l'eau de métrage manam métrage bi ñu am ci ci ndox quoi 64 mètres waaw loolu lañu am ci ci ndox quoi wa njëriñ njëriñ waaw njëriñ li koy dawal solaire moo koy dawal quoi solaire moo koy dawal euh, pompe maanaam direct quoi naaj bi moo koy da ngay taal naaj bi day ñëw mu taal ko direct mu taal ko avec euh, des des des flotteurs quoi. mu am ci moom mooy régler mooy régler su feesee mu feel boppam. bu dee naaj amul nag ban pexe lay gars yi may def. waaw naaj su amul moom du am parce que naaj moo koy moo kii amul batterie amul groupe amul dara quoi c'est naaj bi solaire bi direct quoi c'est solaire. waaw moo koy moo ko moo waaw léegi moo tax ma doon expliquer léegi ci ñoom pour par exemple naaj bi su génnee ñi profité root la ñuy war a root yëpp ñu taxaw ko ñu teg léegi nag euh, après entre temps suñu demee ba euh, ngoon parce que réservoir bi ci kaw c'est dix mille litres donc comme dix mille litres la moom mun nañ ko mun nañ ko mun nañ ko kii quoi mun nañ ko mun nañ ko euh, réserver pour ay ngoon ak ay guddi donc loolu moo tax man leen ñi profité di root à partir de euh, à partir de dix heures dem ba quatorze heures ba quinze heures heure boobu mun nañu root lu ñu bëgg quoi. ndox bi waa moom laa la doon wax léegi donc ndox bi comme yaa ngi am 64 mètres de <laughs> mètres de de l'eau loolu moom mënuñu ko jeexal donc loolu moom village bi sax mun na ko gérer yëpp mais problème bi mooy réservoir bu war a téye ndox bi ci kaw quoi donc comme euh, ki ko maye lii dooleem fii la yem ci la ñu defar château do bii nii ak 10 euh, 000 litres bi. pour nous servir en attendant nous avons euh, je m'appelle Hamidou Anne, je suis euh, membre de l'ONG Sakuyu, Action pour l'Espoir. Euh, dans le cadre des activités de cette ONG, qui est une ONG qui a la particularité d'être sénégalo-sénégalaise, qui a été créée et gérée par des Sénégalais, financés en grande partie euh, par des financements de Sénégalais vivant au Sénégal ou à l'extérieur. C'est une ONG qui s'active autour de quatre domaines essentiellement. Donc nous avons le domaine de l'accès à l'eau, de l'éducation, de la santé et de la lutte contre la pauvreté. Par exemple, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, nous intervenons dans les maisons d'arrêt et de correction en accompagnement aux détenus. Nous collectons, nous distribuons de la zakat à des populations qui en ont besoin. Nous nous accompagnons des orphelins et des veuves, c'est-à-dire des familles monoparentales qui sont dans la détresse extrême. Dans le cadre de l'éducation, nous avons effectivement construit en campagne, en rase campagne, je peux dire, cinq écoles qui sont intégralement construites, gérées et financées par l'ONG, c'est-à-dire euh, l'ensemble des frais qui sont liés à ces écoles-là, qui sont en train d'être reconnues par l'État. Au niveau de la santé, nous avons construit trois cases de santé, également en campagne où les populations parcourent à dos d'âne ou de cheval avec des femmes parfois enceintes pour aller euh, trouver une case de santé, un dispensaire qui est à plusieurs kilomètres. Nous avons construit pour ces populations des cases de santé qui leur offrent un minimum, qui leur permet une existence et des soins au niveau local. Aujourd'hui, c'est le bateau de feu concernant la construction des forages. Absolument, absolument. beaucoup à travers le pays. Absolument. Voilà, voilà pourquoi j'ai terminé par l'aspect accès, à l'eau, qui est le dernier. Dans l'accès à l'eau, nous avons commencé, en 10 ans, nous avons réalisé 500 puits dans les 14 régions du Sénégal. Le 105 e puits a été lancé la semaine dernière. La même semaine, nous avons clôturé ce projet que nous sommes venus euh, inauguré aujourd'hui, c'est-à-dire celui de forage. Ça veut dire que nous, on a fait au plus simple au départ, parce qu'en fait, l'idée du puits est une idée simple. Vous allez dans un village qui fait 200, 500 habitants, vous leur offrez un puits, ils ont de quoi se satisfaire. Ils vont plus parcourir les 400 km. Les enfants vont pouvoir aller étudier, les femmes vont pouvoir se soulager par rapport à cette corvée. Il se trouve qu'après cette grande étape, il fallait qu'il y ait cette coïncidence-là qui vient de la part d'Allah, qui nous a offert ce premier forage-là avec un partenariat une personne, une bonne volonté qui est un Sénégalais comme nous, qui a vu les actions de l'ONG, qui les a appréciées, qui a eu confiance en nous, qui a financé ce projet, qui nous a accompagnés, raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui le financer. Mais nous l'espérons, Inch'Allah, ce sera le point de départ pour changer de level, aller sur un autre niveau, celui de la réalisation de forages puisque comme nous le savons, l'accès à l'eau constitue une des problématiques majeures de notre population qui est essentiellement rurale au Sénégal. Absolument. Vous savez, quand vous faites un forage, vous ne faites pas un seul point d'eau comme en puits simple ou en mini-forage. C'est un château d'eau qui est censé desservir l'essentiel de cette population de 5000 âmes de la commune de Chériflo. Comment on a procédé C'est d'abord euh, un réservoir de 10 000 litres avec un système solaire qui est là, qui permet de desservir euh, la Dara qui est juste à côté, la concession du chef de village, la mosquée, la rue principale qui parcourt, euh, euh, qui est à côté du forage. Donc nous avons 10 points d'eau aujourd'hui, non seulement qui peuvent desservir beaucoup de monde, mais également nous avons prévu un système de branchement qui permettra aux populations de s'organiser autour d'un comité de gestion qui leur permettra de procéder à des branchements à travers les grandes rues de cette zone-là et puis du coup de pouvoir avoir un robinet chez eux, histoire d'être desservi chez eux et d'être tranquille. Donc le but, c'est d'avoir un système qui est l'équivalent de celui que nous avons dans les grandes villes pour rendre les populations le plus tranquilles possible par rapport à ça. C'est un projet de 16 millions, mais comme on a dit, on a été accompagné par un généreux donateur. De toute façon, l'association Sakuyu à la base a été créée par des jeunes Sénégalais qui ont sorti de leur poche pour réaliser les premiers projets. Mais le but de cette communication, justement, c'est de montrer les actions de l'association, histoire d'appeler de, d'appeler les gens à venir nous rejoindre pour desservir notre propre population au lieu d'attendre une aide étrangère hypothétique.